naa kàddu yi day digal ci jëmm ji tax ñun ñëpp ñu daje fi te xam naa sax dégg naa yenn bokk yi wax ñu bañ a wax Cheikh Omar ndax mel na ni moom mënees na koy wooye Ximaar Jaañ moo gën a jug ci mbiram sax ci di ko wooyee neneen dafa wax ne mbindum sëñ Tuubaa moom lépp wérul walla lu mar a seetaat la mu mel ni moom dafa mën a tege tuuma ginnaaw sëñ bi li mu bind dafa bari te fànn yi mu bind dafa bari la doon baax mooy nga teg sa baaraam ci ne fànn gi liñ ci bindee du noonu wala liñ ci waxee du noonu waaye day mel ni moom day junju rek ni ki mu waxee ni ci jumaa ji signe boobu fi nekk ginnaaw moom xàmmee na signe yi ndax mën naa nekk seen représentant du ñàkk mu xam na muy mel mu ne boo leen demee ca buntu penku ba baa sawu ba baa ci digg ba sëñ ba mel nangam di suñu franc mi ngi ci jumaa ji mu leeral ko boobaat bu dee laa la xam na ne Touba moom léppam diine la euh, ba ca toppit mooy kuy jéeñe sàcc ndax dëlëf-dëlëf ji ci yoon wi ak nu ngoo joxe alal ji ñi koy joxe sax xamuñu ne ñoom yëguñu ne ñi ngi koy joxe kon bu mu jàpp ne lu jubut la ba tax sëñ Touba la yàlla tàggatal xol yi bu laajee danañ joxe bu santaanee des na jëf bu dee ci mbindum sëñ bi da koo jéggi Cheikh Ibra Diop almachan dafa waxoon ne ci sëñ Touba fa fi kulli baytin min nidaamika ibra biha yahuru aarifu almutabasir defe naa kii wax lii ci mbindam nag ida katabtu intazartullah jalla wa xaaba kulla jaanillah ida katabtu farra iblisu bila tawajjuhun liye wa anni kubila ida katabtu aw qaratu xaada liyal badiu fadluhu fan qaada ida katabtu ittasama sujaau wantajaha li hasidil awjaa bu jëkk wii yonent bee moom mooy bu ma bindee bi day bég waaye képp ko iñaan nag aw metti lay dara mooy onk ju Omar Diagne dëkke alaw jaagoy muy Omar Diagne ida katabtu aw xaratu farra iblis ma kullu koo xam ne boo bindee iblis danaan pëccët di daw ak kuréelam aw xaratu harwala ila siwaaye kulli man taqawwala kon koo xam ne mbindam kitaabati min lawx rabbi tanxulu laa yamtari fiiha nabilun yanqilu mu mel ni nag dafa am benoon benn wata boo xam ne da daan wuti ñambi waaye daa amu golo yeewu ko ci wata bi golo gi bu nit ñi dee tàccu naan golo golo goloy sëq ñambi ji di may nit ñi saa yu borom wata bi gaaree nag bu xoolee xam ne ñëmb ji manqué na mu perte mujj nag mu ne naa ci defub settantal mu fexe ba xool golo gi ci seetu bi seen ne nit ñu koy barawoo di ko taccu moo tax gaynde di di di golo gi di publier ñambi ji di ko maye mu jàpp ko duma ko duma yu mettee metti yeewaat ko ca gannaaw morom romb dëkk bi nag ña doon tàccu di tàccuwaat di séentu golo sànni leen ñambi mu naan leen nii noppi leen ndax mi ngi may séen fii kon golo gii rëcc ci kër gii di sànni ñambi ji tee ngeen ne yeew seen golo gi ndax bu yàqee ñambi ji yéen la yàqal seen ñambi te du tee ñeneen bay ñambi ñuy dunde ñambi kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax sëñ Touba nag sëñ Ibrahima Diop ne na tabban li munkarihi tabban li xaasidihi tabban li man anada kenn du ko noonu am jàmm du sa jëmm tax waaye ku amul lu mooy lenn ku ko laal gis leen waaye yow yàgg ngaa wax te kenn tontuwu la ba ngay wëri plateau di wut ku la xam ku ne nga jiñ ko franc-maçon akub sàcc ak góor jigéen say wax mënu koo weesu diw moom la képp ngay wax waaye amoo tegtal boo ca teg booba jàpp ñu ne yow ku nu war a wuyu nga ndax ku bëgg a lijjitu képp ba nga ne am nga place nag ba jàpp ne jekk nga boo tooñee ci lañ lay war a door a tontu yow Ximaar Jaañ nga xam loolu xam ne ñun duñ dëpp duñ bàyyi duñ tayyi duñ dellu ginnaaw sëriñ bi lañ am ñoñam lañ am danañ jébbulu danañ joxe danañ gëm te duñ dëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Gànna